برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام لله الذي خلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وزرع لا يقيم عن بشره سقير النمل في الليل إذا سرى ولا يعصب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السَّرَى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث في أم القرى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد أيها الإخوة الكرام نعيكم في هذا الموزن العظيم وشهر الكريم شهر يفتح الله فيه أبواب الخيرات ويعزم فيه الأجر ويجزل المواهب شهر المنح والهبات سهر الخيرات والبركات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار assalamu aleykum mbokki julli di ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar ci bis bu màgg bi waaye rawatina nag ci weeru màgg weeru tedd wii di weeru koor di leen ndokkeel beneen yoon ci jataay bii nga xam ne dañ koo def rek pour di jàngale ak dajee waxtaan ci yàlla ak tudd yàlla ñu ndokkeel ñi nga xam ne ñoom ñoo koy taxawee bu baax a baax ah ñu jëlal ñu rek nag kanaa damay wax rek li nga xam ne moom la oustaz Habib Mbaw waxoon mooy ne làmb bu amee combat bu mag dañuy jëlaale mbër yu ndaw yi ñuy làccantuwaale ci géew bi ba bàyyi mbër yu mag yi di teewee loolu moom mooy sababu suñu teew fii waaye du xam-xam du dara ñu joxoon ñu tam nag pour ñu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy siyaam yaakaar naa muy tam boo xam ne ab taalibe war na cee mën a làccantu siyaam nag buñ ko waxee baat bi ñu ngi koy firee ne moom mooy noppi ndax mi ngi diggee ci baatu saama bi firi wala ñu bëri nuñ ko firee mooy noppi na wala jàpp na ñàmburam ndaxte baat la boo xam ne alquran ba mu ñuy jàngal koor moom la utilisé mooy siyam kutiba aleykumu siyam ndax dafa am ñaari masdar moom baat bi muy assawmu ak asiyaam alquran nag ba muy jàngale koor utiliser wul assawmu siyaam la utiliser mu ñëw juróom-ñaari yoon ci alquran waaye yépp ci wàllu koor comme niñ ko xamee ñun loola lay jàngale waaye amma baatu sawmu nag moom ñëwul benn yoon ci alquran di tegtale koor comme ñun nuñ ko xamee waaye xadis moom moo ñëw utiliser ko comme yonent ba muy jàngale ponki lislaam yi bam ni buniyal islaamu ala xamsin shahadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaat wa itaayi zakat wa sawmi ramadana moom baatu sawmu la utiliser te sawmu boobu noonu borom xam-xam yi nee du firi ñàkk a lekk rek ak ñàkk naan wala sax am na ñu ne ñàkk a lekk ak ñàkk naan bokku ci ndax saydatu Maryam bi nga xamante ni nii jur na doomam ab yónnante di yónnante yàlla Isaa la mu waxoon mooy inni nazartu li rahmaani sawma man dama niseer woor borom xam-xam yi ne moom loola mu nisaroon noonu nekkutoon ne da see jublu maanaam daw débat comme sa ne danañ ko laaj yow foo jëlee doom ji ba tax mu ne man dama niseer koor noppi déedéet mu ne waaye lim ci jubluwoon mooy ne ñoom loola jaamu yàlla la woon ci ñoom lu ëpp ci mu fassiroone yi loolu la ñu wax dañ ne ñoom noppi xam naa buñ koy firi suñ jamono ji moom mooy dugg xalwa ñoom loola koor la woon ci ñoom kon loolu rek moom moo ñuy tegtalal ne baatu mu li muy firi moom mooy noppi walla jàpp ñàmbur ndax dana ñuy wax ne saamati riyaahu maanaam ngelaw li bu arrêté doxatut danañ koy utiliser baat boobu niki noonu tamit dana ñuy wax saamal farasu maanaam fas wi bu doon daw dawatul danañuy utilise baat boobu ne fas wi dawatul ñu am ci benn bayit boo xam ne nabixa subyaani moom moo ko way mu ne xaylun siyaamun wa xëyru xayru saaimatin taatal xajaaji wa uxra tuhlikul lu jama muy wax ci fas wu dawut ak wu ñàkk daw bu booba ma nga utiliser baatu siyaam kon siyaam jàpp ñàmbur lay firi li ma ci bëgg a wax mooy ñun yàlla daf ñoo bind pour ñu jaamu ko ba mu ñuy bind booba lekk ak naan bokku ci woon yu bari yoo xam ne nit mi ngi koy def mu neex ci moom nekk bànneex ci moom yàlla ba mu koy bind loola taxutoon ndax yàlla dafa wax ci alquran ne wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yaabuduni man dama bind binduma nit ak jinne ndare ñu jaamu kon leneen bokk ci kon sa loxo bii bala ko yàlla di bindal pour sujjóot rekk moo taxoon ak te jukkib alquran di jàng sa bët yi bala koy yàlla di bindal pour nga mën a liir alquran mën a jaamu yàlla looloo taxoon yàlla bindal la say bët say tànk tamit ba mu la koy bindal duutoon dem marché duutoon dem fenn waaye dem ci jataayu yàlla yi ak julli dem jàkk loola moo taxoon yàlla bindal la ko kon lépp loo ci dollu rek bonus la ci yow ndaxte ku ne xam na ne boromam oto bu jëndoon otoom bu bees tàq jox ko benn sëfoor ne ko man kat chaque jour dix mille francs lay laaj ci oto bi bu boobaa yow chaque jour balaa ngaa joxe dépasse wala ngay maye wala ngay joxe ndawtal war nga ko verser dix mille francs ba pare parce que moom moo moom oto bi te moom kat oto bi chaque jour dix mille francs la ci soxla kon yàlla bu la bindalee ay loxo ki tànkaa ki bët bindal la loolu yépp kon balaa nga cee def leneen yaakaar naa moom lam la sant ci julleek woor yow loola war nga koo matal ba pare ndax moom moo moom ay tànkam moom moo moom ay bëtam moom moom ay loxoom te nee na la man kat lii laa ci bëgg leneen nag loo ci mën a def tama daganal ko rek bu boobaa may naa la ko waaye man lii laa ci bëgg waaye nag doomu aadama bi nag dafa mel ni toujours dafa yomb fàttee loolu moo tax bu fàttee loolu rek chaque année bu weer koor jotee yàlla ne ko taxawal léegi jox ma lépp la nga doon lekk ak la nga doon naan ak lépp arrêtel ndax waxoon naa la léegi kalimatu siyaam moom mooy taxaw maanaam jàpp sa ñàmbur li nga doon def defatoo ko léegi nag bu weer koor jotee yàlla ne la taxawal léegi li nga doon def yépp arrêté ko bul def lu dul li tax ma jaam ma bind la mooy nga jaamu ma man kese lekk nga tegee ko fële naan nga tegee ko fële soxna si nga tegee ko fële bu boobaa looloo tax ñu tuddee ko asiyam lan mooy walla kan mooy ki nga xam ne moom moo ko njëkk a def ki njëkk woor boroom xam-xam yi saxal na ne saxal nañ ne yónnante yàlla aadama moom mooy ki nga xam ne moom moo njëkk a woor waaye moom ni mu doon wooree moom mooy weer wu nekk mu woor si ñetti fan noonu la daan wooree ginnaaw gi tamit yónnante yàlla noohu wax nañ ne moom it daan na woor weer wu nekk ñetti fan ngir sant yàlla ci yàlla mi ko muccal ci tuufaan mi waaye tamit jëlee nañ ci alquran tamit ba tey ne mboolem xeet yi jiitu woon daan nañ woor laay ji koy tegtal mooy fi mu naan ni kutiba aleykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum bind na dogal naa ci yéen ngeen di woor comme ñu njëkk ña lañ doon wooree loola boo demee ci tafsir Euh, alqaadi Abu Saoud Afandi moom wax na ne ñu njëkk ña daan nañ woor waaye weeru koor lañ daan woor sax nee na yi yàlla weeru koor la wàccee woon ci ñoom ci yonente yàlla Moussa weeru koor lañ daan woor waaye ak seen ak jubadi tax na ñu bàyyi fa weeru koor jël benn jour ci année bi te moom mooy yawma asura ñu di ko woor mooy yow bis bi nga xam ne ñoom nee nañ ci. ak siyam wax na ci wax yu am solo wax na tamit asbaab yi li tax yàlla di wax jaam bi muy woor ala kulli halin muhaadara la boo xam ne muhaadara qayima daanaka sax commentaire xanaa ñu taxaw rek ci cause yi wax mooy woor daf lay fay nit dafa am ay xal dafa am ay xal yu tak ci biram am na xal wo xamni julli rek ko meuna fay leg leg waji ji aw saga li tax muy saga organ bu ci biram la nek leg leg waji ñu nodd mu xëccaat mbajimi leg leg waji ñu mu dem robi niki mu ne man damay nan ataya dafa am ay organes yu nek ci bir motax ngay wax lolu conférencier bi neena hor day fay xal xam nga xal mom dafa kon li tax waji ji débordé di déconné bu génné ci quartier bi kenn du am jamm dafa bokk ci fay xal comme niko ko bi waxé moy wor kon wor dafay fay nit ki dafay téye nit ki pour mu mën a jaamu yàlla bu doon loolu rek la yaakaar naa doy na kon oustaz Basir ñu ngi lay gërëm bu baax wax na tamit ne woor dafay participer ci santé nit ki ki woor dafa am ay taaqa taaqa boo xam ne ilaahiya la mooy dafa am énergie boo xam ne julli rek moo la ko mën a jox dafa am énergie boo xam ne ni koor rek moo la ko mën a jox demeet ba doo xam ne asaka rek moo la ko mën a jox loolu mooy secret yàlla jaamu yàlla yi yii dafay takaraar yawmiyan yii dafay takaraar shahriyan yii dafay takaraar sanawiyan boo ci bàyyi rek def nga erreur te koor nee na dafay maye ñur gu yaram loolu moom xibra bi expérience bi ñépp xam nañ ko benn borom xam-xam bu dëkk Russe jël na ay fiiraan ay janax yu bari dajale leen yii mu woorloo leen yii wooruñ mu def ko lu mat fukki fan juróom def ko ba mat weer mu jël janax yi woor seet leen defal leen visite médicale jël janax yi woorut defal leen visite médicale te balaa ñoo dugg ci kaaf bi ñoom ñëpp ñoo tolloo woon état de santé mu xool ne janax yi woor amul benn feebar wala sax feebar yi nekkoon ci ñoom wér na janax yi woorutoon nag yii ñu ngi jabet yii am tension mu ne kon jullit yi li seen yonent bi wax dëgg la kon muhaadar bi ñu koy gërëm bu baax jàngal nañu koor baat bi jàngal nañu njëriñ li jàngal nañu cause bi wax na sax koor ni muy participer sunu wér gu yaram kon ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal bu baax di dem ci beneen conférencier bi mais balaañ ko jox danañ jox xale daara ji cinq minutes ñu jàng diwaanu sayrul bi ci programme bi la bokkoon dañ leen may cinq minutes ñu jàng tuuti ci sayrul qalbi su ko defee ñu jox deuxième conférence yi moom itam am na trente cinq minutes. pour moom it développer temam moom it incha allah bu xale yi paree ci diwaan boobu daañ ko présenter su ko defee ñu mën a am temps balaa 14 si sikarkat yi ñoom itam mën a tudd yàlla tuuti kon Cheikh yi mën nga jox sa xale yi. Hooray! حمام المشجع تراني وإني غائب في حاضرا أحاكي رقودا سائرا فوق مضجع فتاة الذي هل أطب من يواصلني في كل بدايها ومربع فتيكا فتيكما سباني أغيدها فغر المعالي خذات بمجمع واجهة فتلادي وشم أريده وفهم الذي يحيي ويغير الأبطال أرى كرى تنال المضيع أرسل خلافا بين كقوم محمد فيربطنا التوحيد من كل موضع فنمشي على ناجل أمين سوية نتابعه فالكل وجد السنة الهادية على خير مياع نصلي كما كان النبي مصليا نصوم كما نقوم سبيل صميتع وننفق قل حال بخير نريد صراطه نحدك حد لا شمي المتبع نكرر حقا لا إلى سوى الذي له الخلق والأمر نفسه عظيم التمنع عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب الهاشمي المشرع الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخائل إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وارث سره وخليفته القطب المكتوم والبرزق المختوم مولانا الشيخ أحمد تجاني رضي الله عنه وعن وارث سرهما وخليفتهما على الإطلاق شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم رضي الله عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم حضرة ضيوفنا الكرام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله جناب سنت الله جلسين سنت بصلى الله عليه وسلم ñu ngi tatagal suñu gan yi di nuyu di si jiital suñuy sëriñ ñi nga xam ne ñoo toogee si suñu ginnaaw te tarewut ñoo nekk suñ kanam di si jiital Seydi Aliou Harazim ibn Mawlana Cheikh Hassan Deme suñ ko nuyoo rek daafaale nañ si ñëpp di yees lu ndigal si moom dinañ wax nag ne su nekkutoon ak isnu te mooy ndigal danañ wax ne jotaay bi wala chaise bi su nekkoon ne yëre la danañ wax ne ñun yére bi daf ñoo ëpp daf ñoo ëpp lool sax si lépp si ñàkk xam-xam ñàkk jikko wante nag ndigal la te yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koo wax ne waxal si ndigal lu ñu war a waxtaanee tey mooy jikko jikko nag mu nekk loo xamante ni lu ama am solo la wala sax kërti kërti yu ñu def yépp islaam tarixa yeeg turux yi luñ bëri bari daanaka ñoom ñëpp seen finalité mooy jikko jikko boobu lañ bëgg a jàngale wante ñu jox ko koo xamante ni ku gàtte xam-xam la aussi tamit ñàkk jikko wante lu ñu wax rek su nekkutoon ak ndigal nu kon duñ ko jëfee suñu waxtaanee jikko ñu xool xayrul alamin sallallahu alayhi wa sallam yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lu mu ay qualité lu mu ay xarbaax lenn rek la ko taggee mooy jikko mu wa innaka la ala xuliqin azim mu ne ko yow ku rafet jikko nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom si boppam jàngale na lool nee na mission bu ko yàlla yónni mooy lan defar jikko yi innama bu'itu li utammima makarim al axlaaq yàlla daf maa yónni ngir ma mottali jikko yu tedd yi jikko yu kawe yi booy xool alquran moom yàlla wax na lu tax mu bind ñu dena maa umiru illaa li yaabudullah muxlisina lahu diin lu tax ñu bind ñu mooy ñu jaamu ko te sellal jaamu gi mu wax feneen ne inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu mu ne dama leen a bind ngeen nekk ay xeet nekk ay indi pour lan ngir ngeen xamante fee mu wax ne ngir ñu jaamu ko fii mu wax ne ngir ñu xamante wante soo mootalee aay bi mu jàngale ne indi akramakum inda allahi atqaakum maanaam xamante googu yëpp lu ñu jure rek pour mu am njëriñ mooy ragal yàlla wante yonent bi sallallahu alayhi mission bu yàlla yónni moo mooy lan mu defar jikko yi ginnaaw buñ ndokkalee euh, oustaz bi nga xam ne moo jàll cinq mu oustaz Bachir suñu waxtaan danañ ko laytaanee boo demee si téere yu ñuy jàng si majalis am na bu ñuy wax asamru daani muy risaala am na bunt bi muy jàngale chapitre bi jàngale baabu jumalin min al faraidi wa sunani al waajibati wa ragaib buntu bi nga xam ne dafay jàngale yuñ farataal ak sunna yi nga xam ne dañ koo feddali ak yu ñu xame bi foofu dafa jàngale ñeent hadis yi nga xam ne moo tënk mboolem jukko yu baax yi foofu la ñuy lay taayale waxtaan bi dafa wax ne wa jimaahu aadaabil xayri wa azimatihi tatafaraxu an arbaat ahadis mboolem jukko yu baax yi mu ngi askanoo si ñeenti xadis ñeenti xadis yooyu nag incha allah boobu lañ bëgg lay taayale waxtaan bi bu si njëkk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa wax bu wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc mu ne na nga wax lu baax wala nga noppi kon nga déggee si ne nit ki booy wax nga wax lu baax lu nit ñi mën a jariñoo wala nga wax lu baax si sa mbokk nga seede si moom bu ko jëw si ginnaawam soo mënul wax lu baax lu nit ñi jariñoo rek nee na nga noppi kon hadis boobu moo si njëkk si yi nga xam ne borom risaala jàngale ne hadis yi nga xam ne moo tënk mbooleem jikko yi baax yi hadis bi su topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne min husni islaamil mari tarkuhu ma la yaali nee na bokk na si rafet ak islaam asjam lépp loo xam ne amalul ko njariñ mu bàyyi ko fa loolu nag su ko jullit bi déggee wax dëgg yàlla dana nekk koo xam ne ku nay si taam lay doon maanaam lépp lu la amul njariñ bu fa rey sa taam loo xam ne mun na laa yokku si sa économie wala loo xam ne mun naa yokk sa diine yoo xam ne mën nga say yokkoo si xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu la amul njariñ loolu bàyyi ko fa kon nee na boobu mooy ñaareelu hadis bi ñetteelu hadis bi mooy sa bi sallallahu alayhi wasallam hadis bu mu wax. waji ñëwoon nako ya rasulullah dénk ma yentu bi sallallahu alayhi wasallam nako la taghdab bul mer kon nga xamanteni mer bu ne bul mer na bismillahi لكم لعلكم تتقون أيام وأن فمن شهد منكم السهر فليصم الله أكبر بسم الله الرحمن せろ sabal sini marhamani bulo xiyata xaw na ca kemtaan ne la ilaha illallah ila jaan mooy jaani kemaan Chérif Arhama mbottu man ko naan Madi Abdoulaye jaam ab yàlla laa tuuf seen ndox mi maa koy gardeel lu barahama ni bam fa boo dem na ci booru jën mag wa yëngu buloo dalli sabal ci ni barahama ni box mu ranko naan maa di Abdoulaye jaam ab yàlla laa suma no yeege jeraase sëriñ barahama ni bax mur jën wu rëy wi duñ la xiiro duñ la sanni mbaal yaa di roose bëhru malakoot sëriñ barahama al abraar wa man istanaara bi anwaarihim wahtada wahtada bi hudaahum ila yawmi diin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax yàlla mi nga xam ne ci xereñeem ak yërmandeem lañu dajale woon fii daaw ci terrain bi ren mu dajale ñu fii ci mbaaxam gi ñu ngi koy ñaan ñu dajawaat at yu bare bare bare bare bare fi ahsani xaalim di ziyaare di nuyu suñuy sëriñ comme niñ ko waxee xaj na bu ñu demee ba ca ca pandooy ga am na lamin wu ñuy xaar mu dalal leen waaye daal ñu ngi ziyaare ñëpp di nuyu ñëpp di massawu ñëpp ci coono bi ak ci déplacement yi di waa rek ne incha allah mawduu tey bi ñu ngi ci bëgg a dugg mu aju ci wala takkun ka saaxibil xóoti jenn laaye ci alquran ndax dañoo nekk ci weeru alquran muy laaye joo xam ne euh, buñ ko jàngatee lu mën a xéwanal suñu àdduna xéwanal suñ digganteeg suñu borom may ñu texeeg alaxira insha allahu taala yàlla ci mbaaxam gi mën nañu ko cee may balaa loolu nag weeri weeru alquran la comme weeru alxuraan la nag ñu taxaw tuuti ci ay jàngat ci alxuraan yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu daan gën a jege alxuraan rek mbaaxam di gën a yokk te kenn ku ne xam ne jëmmi mbaax la woon ju doon dox ci kaw suuf jëmm mbaax la woon ju doon dox ci kaw suuf jàng nañ ci xadis yónni salaa sallam kaana ajwada naas wa kaana ajwada ma yakunu fi ramadan li yàlla bind yépp yépp moo ci gën a tabe waxuma tabe joxe alal kese waaye tabe joxe xam-xam tabe jël temps jox nit pour mën ko jëriñ tabe tabe tabe yépp dafa nekkoon ci moom kaana ajwada naas waaye ndeke mbokk yi jikko léeg-léeg temps yokk ko léeg-léeg barab yokk ko léeg-léeg jëmm yokk ko kaana ajooda naas waaye wa kaana ajooda maa yakunu fi ramadaana weer wi ñu nekk sallallahu alayhi wa ci la ëppoon lu doon tabe indi nañu li tax naka jekk mu alxuraan amoon na relation bu dëgër waaye ci weeru koor ci lay yokk pour ñu wax ko ñëpp mën a dégg bu doon wàcce kaamil weer wu ne benn kaamil weeru koor ñaari kaamil lay wàcce mooy daana mu jibril daanañ waxtaan ci alquran ba ñaari yoon ci weer wi kon ndeke laal gi mu doon laalaat alquran moo yokk ak tabel kon ndeke alxuraan téere la boo xam ne mbokk yi ngeneen la leer la lu ne ngi jàngat bi ñu njëkk jàngat mooy yàlla da ko teral nit dara mën naa tedd ci jëmm te du tedd ci temps du tedd ci barab du tedd ci loxo yi ko doon gàttandu alxuraan ak xeeti saraf yi dafa daje ci tedd na fa mu bàyyi ko tanzilum mi rabbil alamin message bi kan moo ko joxe ku koy ku ko yónnee ñu ne allah kon am na saraf bu rëy ci yàlla la bàyyi ko yàlla ma nga xam ne ak manki amu fa cër ayib amu fa cër ak folleeku amul tippee yàlla bi moo indi alxuraan muy benn doole malaaka yi yore bakkan yi di faat bakkan li ñu yore liggéey bu rëy la bu raglu la ñu yore wërsëg yi ñooñ ca keppaar ga toog ca basang di xaar ndigal jibril la yàlla jël jibril mooy aminu sama moom la yàlla óolu ci asamaan jël alxuraan teg ko ci loxo muy benn bi mu ñëw mu jox ko mbindeef mi gën a rëy ci mbindeef di yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam بكر لا روح لا خل لا من جبريل موك إن لي وينزله على قلبك بقول على نفسك بقول على روحك مجل قلب وما أدراك ما القلب قل ممرك لن سوغلا موتاك ني لي جانغال القران خول وما القران لامين bis boo amee alxuraan xor rek nekk yonent yàlla muhammad muy dox ci kaw suuf si nazalahu ala qalbika muy ñaar làkk yi bëri nañ ca alliwa yàlla ja làkk bu neñ fa waaye bi arabiyin la wax kon dëgg dëgg mbokk yi alxuraan yàlla ko teral zamanan wa makaanan wa ayaanan téere boobu nag ñun mooy suñu téere mooy gàggantikukaay bu mag bi nga xam ni bokkut ak yeneen façon téere yi bokkut ak tamit yenn façon waxin yi ma jox ci benn darsu bu gàtt laa baatu laa ci al ci arab mooy fi di déedéet laa waaye da koy fekk ci alquran mu teew ba pare di firi waaw waaw nga fekk ko ci alquran fu mu dëkkoon ñun ana laa ñu ne laa nekku fi muy firi déedéet te nekku fi loolu ci ijaaz alquran ci la bokk ci misaal laa uqsimu bi hada al baladi laa googa boo koy firi yaa ngi waaw nga koy firee bi maanaam maa ngi géñ waaw laa googa day saxal dàqut wa ala alladina yutiqunahu ca baqara yaani wa ala alladina laa kon laa day teew di firi déedéet day teew di firi waaw ñàkk fee nekk firi déedéet loolu yépp ci uslubu quran uslub ba deex la boo xam ne kalaamun min rabbin azaliin subhaanahu wa kon mbokk yi téere boobu ñu yore ñun nga xam ne léppam kéemtaan la mooy suñu téere am nay tur yu bari arab day wax ne kasratul asmaai tadullu ala sharafil musamma tur bu bëree day wane ne waa ji dafa tedd alquran téere bu bëri ay tur la tey benn laa ciy tànn pour yu meuna dem moy tan naaj gi fi ko yàlla tuddé hablu moy firi buum bim ñu waxé ne waxtasimu bi xablillahi jamian abdullah ibnu abdullah ibn masud firé nañ ko nu nek baat boobu xablu moom mu ne man tan na firé ko buum ñu nit tay suñ jaraay tay bi tan nañ firé ko buum ndax lan mbokk yi nañ dox tuuti dem ca marché ba seeti jaaykat a buum bu am njarte nga toog ci wetam déglu nit dana ñëw jënd buum pour yeewi xarab nit dana ñëw jënd buum pour am meññeent ci garab moom jotut ba ko dana ñëw jënd buum pour am ndox mu bëgg a génnee ci suuf si jëfandikoo buum pour àgg ca ndox ma léegi nag nañ jël ñett rek def ko musaabaha ak téere bi yàlla xam nga ismatu mooy koo xam ne du def erreur yonent yi kër googa ñoom rek ñoo fa logé wala yi ci xifsu lañ dëkk kër goo xam ne mën ngaa def erreur al awliyaawu mahfuzuuna wal anbiyaawu mahsumuuna alquran boo ci téye da lay may ismatu moo tax mu ne waxtasimu kaay leen mucc am kaaraanga waaye nag bi xablillaay boo ci moyee jàpp ci rek mu àggal la ci daayiratul ismati mu ne benn muy xaal walla muy maqaama ci yow mbokk yi buum boo yoree xéewal bañ mu rëcc la yeewee ko alxuraan teraanga joo mën a am ci àdduna lu mu bari bari bari bari bari bari soo ko yeewee sa bakkan bi mbaa say pexe mbaa sa juddu da ko ñàkk ñi fi amoon teraanga mu sax fi pare fee sax ba péncam yàlla alxuraan nañ yeewee seen teraanga yi te loolu buñ ci duggoon dana yaatu muy benn lépp loo bëgg ci meññetam kaw ca kaw mooy meññetam asamaan mënul ala seeni jig ko seeni xam-xam seeni may soo ko bëggee jaar ko ci alxuraan waaye mbokk yi ndoxam teraanga ndox mi lay laabal ndox mi lay nàndal soo ko bëggee jaar ko ci alxuraan moom rek muy benn téere bi nga xam ne ku ci ngoy mucc ku ko wan gannaaw rek toskare kon mbokk yi mooy suñu téere wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu su ko defee nag ñu gis yonent yàlla muhammad sa alayhi wa sallam bi mu jàppee ci alxuraan nañ nañ jàngat nit la comme ñun day feebar ni ñuy feebaree am na sax bés ñu poñe ko ndax bor loo xalaat lu ñuy def ab baadolo def nañ ko sallallahu alayhi pour mu jàngal baadolo yi ñu mën a muñ ndax ñu benn waay yi fekk nañu toog saaba yi yonent mi ci seen biir benn baana baana daal di daal di yuuxu yonentu sallallahu alayhi wa di ko fayee ko benn borom ni ngeen def du ngeen fay borom di dawloo nit ñi comme niñ ko miinee di ko dégg yonent ak daloom ak sagom ak ñàngaleem jikkoom ju mat xam ne day jàngale heure boo ko fekkee ci baseria rek ma ngay joxe xam-xam heure boo ko fekkee ci xususiyaam ma ngay gërëm loo boromam ñaari mooy dundam joxe xam-xam pour noppal nit ñi gërëm loo yàlla li rek moo nekkoon dundam sallallahu alayhi wa sallam xam lan la waxam Seydina Omar mi nga xam ne mënta muñ lu bari ci ko ñàkkee teggin yonantu dafa buur ute waa ji ba ko faagagal yont na ko dalal Omar dalal dalal du nii ñun ñaar ñëpp dañoo war a corriger xoolal ku mat kilifa ku toog yàgg say bi jaam yàlla ñëw ñàkkee la ma e, nga mën koo dégloo nii yombul ba doon keneen keppaar gi keppaar keneen dañ naan na dee waaye déglul yonent ñàngaleem fay borob jaamur bi ndax wax na dëgg maa ko yoreel bor waaye nee ko na rafetal ni muy fayee koo bor moom it bu may yuuxu soo paree demal ca magasin ba nga jël nangami kilo ceeb jox ko ndax da koo ko tiital xam nga loolu leçon bu kawe la nee na ko corrigé ma man naa ko yoreel ne ko mu dal ndax am na ci droit waaye na defeen wi rafet demal pese kiléb ceeb jox ko ndax da nga tiital mooy ndàmpaay dëgg-dëgg mbokk yi su fekkee dañuy roy kii mooy roykat bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne qul innama ana basharun mislukum mag yi nii képp ci am ay problème di xiif di mar di xeex ñu may gagné di xeex di gagné di di joom comme yeen ñep waye fan lañu mëne moy yuha ilayya doole jaagi non mbokk yi doole jaagi noonu li ma rek moy alquran day wax ak man mbokk yi moo gën ci njabotam sallallahu alaihi wasallam mo gën ci am topam sallallahu alaihi wasallam moo gënal boromam ci ay jaamam ndax lan yuuxa ilayya nit su fekkee alquran waxut ak moom ci ëral lay dëkk fokk nga am yuuxa ilayya léeg-léeg nga mer am yuuxa ilayya wan sa mer léeg-léeg nga bëgg dal ci ko nit am yuuxa ilayya jéggal ko kon fokk nga am yuuxa ilayya doo ko normal qul innama ana basaru mislukum mais doole ji mooy yuuxa ilayya kon mbokk yi alxuraan ngoog du suñu téere ñu jukki ci tey nag walla takun ka saaibil xóoti muy darsu tey waaye di taxaw am njàngale tuuti tuuti ci weer wi nekk bis nga maa ngi dénk sama bopp di dénk ñëpp ne nañ yare ni alxuraan di yare weer luñ nekk nii nga xam ne doomu aadama ñaar la am jëmmam ak xeet wi mbokk mooy xeetu doomu aadama weeru kóor wi dañ ci wàññi ay ay lekk ak naan moo la fi baax feebar du rey su la bëggee rey day tëj sa gémmiñ lekkatoo naanatoo mu dafa yëpp lekkul léegi nga dégg mu ne dee na kon xiif ak mar ñooy rey mais feebar du rey fekk malaata nga lekk rek yaakaar a nga am waaye keroog bu ko bëggee rey dañuy ub gémminam gi weeru koor bu ñëwee bu nee ba fajar xar malaaka ni soufflé mboolem jullit bu ne ci terrain bi teg sa kuddu këpp say kaas lekk ak naan moo fi bàyyi suñ jëmm yi kullu wasrabu pour ngeen man fee nekk takkante sëy moo fi bàyyi suñ xeet wi fankexu maa taaba lakum moo tax ñu man fay nekk kon lekk ak naan moo fi bay jëmm ji takkante moo fi bay xeet wi weeru koor na dañ ci wàññi ay mètre dama doon lekk ci bëccëg bi di naan ñun la heure tel ba heure bul jege waaj am amoon nga soxna ñu ne heurtal bu heurtal bul ko jege kon ndeke weeru ñaar yi tax doomu aadama yi di yokku sa jëmm ji di yokku weeru koor dañ ciy wàññi ay mètre lu tax nag xikma bi bokk na ci mooy alquran bu mën a wàcc ci yow gis nga nit su jëmmam muccee ci ay bi zaatu mucc ci ay bi naaw léegi alxuraan ñëw wàcc ci xol soo demee ba nga xam ne jëmmi boppam ji lim làmboo ci rëy ak jikkuy suufe yi mucc na ci xiif na ci yooya ñun ñoo nii ñun ñoo naa ñun ñoo nii mucc na ci yooyu rek mu nekk shahru ramadaan kon loola taxaw seetlu la bu kowe ñu am benn jàngat mbokk yi ci weeru koor julli lu mu baax baax baax baax baax keroog boo jullee ba ci kanam sobe génn ci yàqu na këroog booy julli ba ci kanam ngay xaran ci jàkka ji waxuma julli gi mais njàpp ma sax day yàquwaale bu ne nelaw dafa diis weeru koor nag dafa nuru ak jaamu yàlla ak malaaka yi amul jublu penku weeru boo jubloo géej gi yaa ngi woor boo jubloo ndeyjoor yaa ngi woor boo dëppoo yaa ngi woor booy xaran yaa ngi woor weeru koor amul place amul jubluwaay noo mel yaa ngi benn dars jaamu yàlla ak malaaka yaa ngi woor 24 sur 24 wéru koor rek ci jaam yalla yi mo ci amut dogante julli lo lu jakk ji rafa rafet kéro boo jublo xenu sow kabar xenu ndeyjoor fuqaa yi ñëw wax ak yow way wéru koor amut penku amut amul xat muy ben dars kum neexon na or fanaan ca wanago di tour ndox ba takusan jot sobe lu lu lu ku don don don tekeku mu ne ci wanak yendo fa ngon koram yakku kon kor sobe du ko yak kon sobe munu ci dara amun place buñ ko jaglel moy jaamu yalla ak malaaka boy wax ya nga war julli ba waxee yakuna man nga man nga ne ci auto bi di waxtan ak say xarit yak ci kor ngay wax di gestu di def lo neex ta kor gi du yak kor fa ko yalla denc dafa sori moo tax fa fa ngo denc neexu tànk ba di ko yàq julli dañu ko bàyyee am na loolu booy def toute heure bu ndaw rek mu la baaxatu kon mbokk yi kóorangoogu dafa nuroog lool jàmm yàlla ak malaaka yi déglul nag yarab yàlla koor xam nga dafa métti doomu aadama xiif ak mar noonam la keroog bi yàlla bëggee indi koor nag bëgg a joxe ndigal li déglu ni mu ko waxee booy yar toujours del roy alquran yaa ayyuha alladina amanu mu tàpp tàppal ñu pourtant mënoon wax ne yaa ayyuha naasu yéen nit ñi déedéet yaa bani aadama jum na déedéet yaa alladina aslamu na mais déedéet yaa ayyuha alladina amanu trop fort eh, ñi ma gëm xol sedd nit soo ko bëggee digal dara da fexe ba def ci moom ndax lu mën a dékkundoo loola am noo ko wooyee am noo ko toog loo am noo ko melloo mu doog mën a déglu waaye xiif bu lekk bul naan ñëw rek buude la waaye yàlla na yaa yow dinaa mënu gars ne ah lii de neex na raxas seeni nopp mu ne kutiba aleykum siyaam am na ko dogal ci yéen koor kan la dox yàlla mënoo ne katabtu aleykum siyaam wala kataba rabbukum aleykum siyaam mu ne kutiba am na ko dogal ci yéen koor nëbbu turam borom xam-xam yi ñu ne su méttee yàlla làqatu booy dafa neex mu daal di présenté woo kataba rabbukum ala nafsi rahma ba mu nekk yërmande dafa indi rabbu koor comme doo lekk doo naan mu ne ba daf lay jàngal dëgg-dëgg mbokk yàlla rek mooy moom mooy moo fees dell ak waaye li tax ma bëgg a ñëw accès gu ma ci. mooy nga déglu mu ne ayyaaman maadudaat du ngeen lekk du ngeen naan waaye ay quelques jours la xam nga loolu yow mu ne nit xel mën a dal ayyaaman maadudaat waaye naa ko nawul problème bisimilah na ñëw mu dem ba ci kanam ne shahru ramadan alladi unzila fi def ko weeraw lëmm mais njëkkeewul weer bi pourtant yàlla xamoon na ne weer la mais dafa njëkkee ne ayyaaman maadudaat ay quelques jours lay doon ñu ne kon du yàggut kenn ku ne toogaat mu dem ba ca kanam na shahru ramadan allazi la waaw moo mën a jàngale subhanahu wa boo yar nit nag di ko yar ñi nga ko yare xam nga maa ngi wax xale yi lu yàggut dars boo xam ne toujours maa ngi koy répété ndax damay bëgg xale yi di ko téye xam nga nit boo ko bëggee defar bëgg a tàmbalee fa nit ñi dematee du baax du baax doomu aadama bi ko yàlla di bind daf ndim njëkk a wax xalaqal insaana min alaqin xaban maa ngi bind doomu aadama ci lumbu der min alaqin kin. tuuti na mais da ngay dem ba ci kanam mu nekk basaran sawiyat xoolal maraaxi li muy jaar moom nit tak tak nekk lumbu yang yaa ngi moom yaa ngi moom yaa ngi moom yaa ngi moom ba nga nit kuy dox ci kaw suuf loolu mbokk yi dafay jàngaleen alquran buy yar dafa yar tadrijiyan man ataani si la yàlla wax ku ñëw ci man di raam di dox ndànk ataytuhu hërmalatan man ma xel utal si la noonu la ñuy yaree nit may wax yi dars boo xam ne toujours dama bëgg nit ñi taxaw ci ni yàlla di yare xam nga yàlla bakkan da ko tudd ay étapes yu bari ma jël ci benn bi ma teel ci waxtaan bi mooy inna nafsa la am ammaaratum bi suu'i illa ma rahima rabbi yàlla mu ne bakkan moo bakkan ba mu ñëw mu ne ko cam lu bon rek ngay dégg waaye da lu dee bakkan de bawut mi ngi góor góor mi ngi dem ci saawe yi mi ngi dem ci jataay yi mi ngi déglu waxtaan mi ngi baax baaxlu mi ngi faxas ay bon bonam yaa ngi yow ba mu xëy déglu invitation bàyyi ko ci pay yàlla bi yaa ayyatu an-nafsul mutmainnatu te lu baax kañ waxoon cam am maaratun bisu moom lañ jox carte na ko invité nañ la ci yàlla bi mi ngi lay jàngal ne yàlla muñ na taqam gi di muñ taqam gi di muñ taqam gi ba mu agsi ci tumaaniinatu noonu la ñuy yaree waaye soo bëggee jël bakkan bi o commencé moom ci tumaaniinatu yéeg du amati te doomu aadama dafa néew doole il faut ñu dimbale ko ci defar ko kon mbokk yi ñu ngi ñëw nag ci suñ Maodo xam nga dafa am ñeent. sa diggante ak yàlla sóoraale ko rek waaye mbokk mi fexeel ba bu ñu balee tisbaar takkusaan timis géeye suba loo ci am gaaw koo fay mooy benn bor bi ak beneen bor bi mooy borom maanaa nit ñëw jox la boppam. ci lu nekk ubbi place bu fees del lu mu laaj lépp mu def ne la place baa ngoo jox la confiance am nga wut sa ñaari condamné condamné bi patron bee moo ko moom bi yow yaa ko moom boo joxee patron bi 5000 denc 2500 yaa ngi yaa ngi def loolu mooy day nu confiance bi waaj amoon ci yow yaa ngi koy yàq. yàlla tamit sa condamné ba da koy bënn ci suuf bis da nga dajale ba mu taxaw ngelaw ñëw yóbbu ko étage su ngelaw la fay xaar étage carton nga def ci étage ba mu gudd ngelaw la fay xaar alale jaamur boo ci tabaxee ngelaw la fay xaar xiyaama nit ñoo jox la bopp ngir yàlla xam ne nit nit nga comme comme maanaam nit nga comme moom li ngay yëg yëg mi ngi ko yëg da feebar day feebar dama am problème day ay problème mu yëg na la gannaaw yàlla yow la yaakaar am na nag foofu ñu taxaw fi tuuti ku jàpp ne gannaaw yàlla damay ànd ak yow pour affaire yàlla nga dimbale ma sama borom ñu ne wattaam alquran a ngi fi hadis a ngi fi de sa palapel nangam la d' accord ci ay il faut ñu jàngale comme ëttëb jàngale la pour xale yi. il faut ñu bàyyi loo leen xel sëriñ lañ ko miinee wax ñun mooy dalil xaayit imaam lépp dañ koy firi mooy mënta ñàkk ci diine mënta ñàkk ci diine toujours damay wax xale yi ma leen diggante yonti yàlla Suleymaan ak Bilxiis dafa jàngale sëriñ ak taalibe ba mu nekkee ci àdduna Suleymaan làbbi ko indi ko ci yàlla keroog ba ñu def déclaration daf ne man day ma ngi dox uti jëm ànd ak sulayman jëm ci yalla waslamtu ma sulaymana lillahi rabbil alamin kon nga dege ci ne kon man nga ànd ak nit waye na fekk lillahi mu nek lillahi rabbil alamin liñ bañ kay moy serigne baxañ mu yobul ci jakkay med lu lañu bañ yene ne boo serigne baxañ ci jakkay med la lay dugal wa mun yakunil ghurabi lahu dalilan yamuru bi ala jiye fil kilaabi loolu waykat ba waxoon daaxaañ boo ko toppee ne ko yaay sama sëriñ ci medd na la jëmee xam nga médd la xam sëriñ duut duut lu loo xam ne dañ koy dàq mais doo nag ñu son bubu yëpp dañ leen jàpp ci ñoom wax naa fi xale yi mën na leen ci julli bant ba ngay samp mu tudd saatir nga xam ne dañuy bañ ko romb sa kanam pour am bàkkaar yontu mooy taxaw ñeent fukki xarif moo gën a oyof nga jaar ci gannaaw ci kanam kuy julli bul indi problème bi yow kiy julli mais yow bul indi problème bi yow kiy romb bul dem ba ca mbedd mi ñëpp di romb mbeddu taxaw di julli foog nit romb la kon yaay indi bi boo demee ca xalil ma ngay aaye taarada taarada mooy nga gaarlu foo xam ne foog nit ñi romb la bakkaat bi kon yow yaa koy xenu saatir mooy bant bi ngay samp xale yi toujours pour ñu taxaw di ko seetlu nit dafa foor sëriñ bant nga taxaw bant nekk sa kanam bant ba dafa am lu lislaam wax ci moom jàng nañ ko ci laxdari mooy na laab bant de pour mu nekk sa kanam ñu ne ko bant laabal de nit dafa foor boo ko war a jiite da nga war a laab yow bant na dëgër na sax bu mu la jax-jaxal bant mbokki taalibe yi mbokki jullit yi soppe yi su fekkee bant nga bëgg a teg sa kanam lislaam ñëw indi ñeenti jikko na ko na ko mel bala mu nekk sa kanam mu ngi lay jàngale boo jëlee nit boo ko teg sa kanam na laab ndax ku takk sobe mënta laabal keneen na laab na dëgër bu ko alal yëngal we as weccal am rek commencé na ubbeeku na xeeb ay sëriñam ñaar nit ñett nit teel ko daal mu xeeb ay buntam kooku dëgërut su ko xabul ñëwee mu bàkku su xam-xam ñëwee mu bàkku te loolu musiba la dafa yàqal ku soxla borom bum la jax-jaxal toujours na ànd ak yow ngir yàlla bum la jax-jaxal naka sa xol bi itteel ak sa roogi mu bëyale say dërëm ak sa temps mbokki taalibe yi su fekkee bant soo ko bëggee def sëriñ mu nekk sa kanam fii lañ ko wax kon ki nga war a jàpp noonu la war a mel boo ko ne sëriñ bidaa la mais diw timin na ku ne sëriñ sëriñ la waxoon na ne ca fa lay tëjee te yàgg naa leen ko nettalil ci jamono yunti yàlla Suleymaan la ko dal dafa ñëw seen waa ji garaam bi ak kaala gi ak dokk bi mu ne Sufyaan Kéngo lii laa xamee gaañi Sufyaan Kéngo fekk waa ji di lekk firiir muus mi seen ko ndax sama gaa yi ñoo mën a lele ay joxe kete lekk lañ dañuy def itaar xam nañ itaam commencé bàkk su fenkee moom muus mi ndax gis na garaamu bi kaala gi dog mu sëp ndax melokaani gaañe la bi mu ñëwee góor ci kanam waa ji waajaan ci fiirit na ci fiirit xëcc na dokkom bi xacc ba fa poqataanam di feeñ mu ne dërr muus mi muus mi fettax dawal yonte yàlla Suleymaan muy darsu bu mat a bàyyi xel di ko kalaami ndax ñoom dañ doon wax ak seen mbindeefi jamono yow nit nga mën a wax ak waaye ñoom dañu wax ak seen mbindeefi jamono ñoom ñëpp dañ bi mu ñëwee ba ci moom na ko man day dama lay kalaami diw sàngam doomi diw sàngam dëkk ci quartier sàngam mu woo ko ba mu ñëw mu ne ko lim ma def mu ne ko lu la def mu ne ko dama seen mu yore melokaanu gaañi may ma yaakaar ca gaañi la bokk ma toog di xaar yax wala bopp jën wala aw suuf ma may man aw yat la ma may mu ne ko da bëgg a fayee ko mu ne ko déedéet du ma fayee ko teg moom waaye nee ko na summi yéree gaañi bala moo trompé waat suma beneen morom nañ ko dégrate mbokk yi darsu la waaw ama alqiyaamu fa innaha ka qiyaamihim waara nisa alxay xayra nisaiha mu ne gis naa waa ji ci di gis maa gaaña bi mu ko yëlëbee ndeke ba ko ci gaañ kooku lañ la wax ne ba ko topp wala tuti man axfal naa qalbahu an dikrina alquran mu ne du ko kaalawu rek nga def ko sëriñ damay bañ nag ñu gis ku ne ci tuusi di demmi di demmi kaas ñu bëgg a condamné ñu ne ci terrain bi di yéwénal loola demewut noona mbokk yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di sant yàlla beneen yoon yàlla mayaat ñu ci koor gi ñu ñëwaat ci université bu mag bi laa ko tuddee muy conférence bi nga xam ne daraja ju kawe nga fi fekk ci xam-xam waaye tamit ak ci dégg waaye tamit ak ci lu lay leeralal ci fadilatu oustaz ali mouhamad ndaw yal na yàlla yàggal ko fi te wéral ko te yokk ay mayam ci barke moolana cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu di nuyu mbokk yi fi teew yëpp jiital ci Cheikh Mouhamadul Kabir mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Hassan Deme yàlla def na ren mu teew ak ñun loolu ndollal la waaye tamit ak rakkam Cheikh Mouhamadul Habib biig la jóge ko Abidjan ñëw ci jotaay bi loolu am na lu muy ci lu bëree bëri bëri ci taxawaayu oustaz Aliou Ndaw ci kër Thierno ak ci njabootu Thierno bi ak kóllëre gi ak mboolem rakkam yi nga xam ne teew neen ndax sëriñ bi ba mu jógee rakkam yëpp ñu ngi ànd ak ñoom Cheikh Omar rani fi Cheikh Tidiane mi amee daara ja Cheikh Taha Sidi Arabi ibn Saahi radiallahu anhu ak ali tanasini seyd ali harazimi jigéen ñi seyd umul banina fatimatu zahra wañ di doomi cerno mahmudou wañ waaye ba léegi tamit ak seeni rakk ñoom aïcha ak xalima mariama sow ñoo ñëpp dégg de teew neen waaye ba léegi tamit ànd ak suñuy jarbaat di suñuy doomi sëriñ Seyda ma jëm ñees doomi Adja Fadem ak Cheikh Mouhamadul Mamoun ak soxna Mbooja ñees doomi Adja Fadem ak soxna ak Seyda ak Cheikh Mouhamadul Mamoun ñoom ñëpp dégg nga ci jotaay bi ak suñu yaay bu doon soxna Cerno ànd ak sëriñ bi ci seen tur ci turu Cheikh Mouhamadul Kabir ci la ñuy jëlee parole bi war a tatagal suñ mboole mi gan ndax bés bi suñ bés la bi suñ bés ci anam yu bari ci oustaz taxawaayam ci kër Thierno ci oustaz Ali Ndaw dégg nga ne ci xam-xam ci oustaz Ali Ndaw ci mbaax ak ci mën a jëflante moo tax bés bi bési Cheikh Mouhamadul Kabir la ñuy tatagal bu baax nag Cheikh Mamour Thiaw di doomi xalifa bi fi nekk waxtu wi nii ci layan nga xam ne yàgg naa teewee jotaay bi nekk suñ njaatige nekk njaatige oustaz kàddu mi rafet lool te at bu jot kàddu yooyu lay wax nga xam ne lislaam rek moom moo ko ñor ñu ngi koy gërëm ci teewaayam ñu ngi koy gërëm tamit ci taxawaayam ci daara ji taxawaayam ci oustaz Aliou Ndao ñoom it ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla yokku leen ci zahir ak ci baatin pay bi yépp mën ngaa wax na teew leen ndax sànq doomi cheikh Mouhamadul Amine Niass di taawam cheikh Ibrahim fii la teew ak ñun ba nga xam ne ngant moo tax mu delluwaat kër ga te kooku bu teewee mën ngaa wax ne xadara bi yëpp da nga la teew leen te xam naa ñu bëri ñoo xam ne bëggoon leen a ñëw waaye tey bés bu bëri ay programme la yoo xam ne ñooñu dañ cee tënku moo tax ñëwuñ ñu bëri ñu ngi yónnee seen yóbbante ak seen ngant waaye tamit ak seen euh, ngërmaane ci Oustaz Aliou ndaw ba léegi tamit Cheikh Saïd Sall di ku baax di ku tedd di xalifa Cheikh Ibrahim Sall moom itamit teew na ànd ak waa Huda yëpp Cheikh Tidiane al imam Cheikh Tidiane Ndiaye mu ngi àndook moom waaye tamit njaboot yi boppam gi di njabootu Cheikh Ibrahima Sall cheikh abdallah ak rakam cheikh mahamadul amin ñepp ñepp ñu ngi tew soxna jaara njaay de nga mu ngi tew ànd ak euh, ñoom man leen wax ne ñu ngi ando jëmmo jëmmu cheikh xasan dem tok fi ni ci jotaay bi pour tatagal mbolam gan yi nga xamne ne ñoo teew fii nii cheikh abdou karim ñang doomi cheikh usatu ñang ca tay ba ñangeen suñu xarit suñu wëllëre di wëllëre moo ngi tamit ñu ngi koy tatagal bu baax a baax a baax a baax Seyda Roqiya Ñas doomi Papa Dame Ñas nga xam ne at bu jot mu teew daaw teew na ren tamit dégg nga teew na te dafay def it yu mag ci jotaay bi di ko fublu ñu ngi koy tatagal bu baax a baax di ko di ko gërëm waaye tamit ñoo ngi tatagal mbooleem muqaddam yi ndax bu ma bëggoon a tudd li fiy muqaddam mën naa am mu jël temps bu yaatu te temps bi fi nekk nii daanaka jeex na waaye ñëpp ñëw leen ñëwin woo xam ne ñëwin wu rafet la te ku ci jëloon parole tamit dina feeñal relation bu rafet bi nga xam ne am na ko oustaz Ali Ndaw oustaz xarit yi ñëpp la daara ji kenn desut ñëpp teew neen suñ mbokk daara yee ca sàng Sandaga di yaxantu teew neen mbokki daara ja ca HLM marché HLM da ngeen teew leen mbokki daara ja ca marché géejawaay da ngeen teew leen mbokki daara ya ca ame ay daara di jàngale ak ay imma daanaka ñoo fees dell tant bii nii loolu lu muy wane ne mooy ne ki nga xam ne tey moom leen uy si ci ron ootey daayira nuurul kamaal wax dëgg yàlla kamaal yàlla yàlla mooy ku mat waaye yàlla def na ci moom mat goo xam ne mat ak mën ak jëflante la oustaz amul kenn koo xam ne xam nga ko moo xam yàgg na moo xam dégg nga de seen xame-xame gu xeese la nga jéppi ko ci wax wala nga jéppi ko ci jëf wala nga jéppi ko ci jëfin bët bu set rek jëfinam di gën a yokk sa mbëggeel ci moom kon daanaka ñoom ñëpp dañuy wax rek ne uy si uy si oustaz Aliou ci oote nuurul Kamal ci conférence ñëpp ñoo ci sawar mën naa taxaw amee làmmiñ yi mboolem muqaddam yi gërëm ko sant ko waaye tamit yéen muqaddam yi ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm bu baax ak yéen mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo uy si suñ mbokku Babacar Sall moom it ñu ngi koy gërëm gërëm neen jëf yi démb ya waaye tamit gërëm neen taxawaayi tey ak jëfi tey yi yal na yàlla fay la yal yàlla yokku la at bu jot moom ak képp koo xam ne xaritam la ak képp koo xam ne wëllëreem la dinañ taxaw taxawaay bu mag ci bés bii nii waaye tamit dinañ ci teew teewaay boo xam ne teewaay bu rafet la ñi ci ëpp nag tuddoon leen leen gërëmoon leen leen ci ñu taxaw ci jotaay bii nii ni ki force force d'ordre yi police waaye tamit ni taxawaay mairie bi ni ki tamit dégg nga taxawaay waa gox bi ci ñu mën a am place bii nii ndax place bi du place bu yomb pour ñu fii def dégg nga lu mel ni ki conférence waaye mboolem ku ci dox ba loolu mën a am ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla yàlla fay la ci barke baa ngi sardiyallahu anhu yàlla nag tànnal nañu place boo xam ne toog ko di ko xool rek yàlla dina la jéggal say bàkkaar bàyyee ko wax ba muy lim yi nga xam ne mooy kaafara bàkkaar wa addi mawjil bahri bokkoon na ci nga toog ci géej gi du si géej gi nga koy xool ni muy demee ka ñëw nga ciy gis dégg nga de màggaay yàlla tabaaraka wa taala ak azamatu te ndax boo xoolee géej seetal ni nga xam ne noonu la màggee noonu la noonu la réyee waaye tamit noonu la dalee ki ko bind wax dëgg yàlla màggaayam xel mënu koo naatable xel tamit mënu koo léem daayira Nuuru ñu ngi leen gërëm bu baax a baax seen yàlla na yàlla yokku leen ci zaahir ak ci baatin te na ngeen ci yoon woowu ngeen xam ne noonu la gis naa léegi yéen a ngi dugg ci tasaare waxtaani oustaz Aliou Ndaw ak xam-xamam wax dëgg yàlla ku ñu war a tasaareel la xam-xamam ndax xam-xamam dégg nga ne njëriñ la. ndax fi mu nekk nii euh, gudd na guddi na te fi mu nekk xam ni ma koy waxee at bu jot heure bii moom ku sant saw ja bañ ma bañ a tudd ndaw nopp nekkatu fa. dégg nga mënut a dégg mu ngi xaar rek dog jot na ci Dakar ak lu ko wër wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.